yëkkati kàddu ci li nga xam ne moo xew ci àdduna tey muy li nga xam ne am na ñu koy def ci àdduna di ñaawal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te mënuñ ko nag ndax innaaka fay naakal mustahsin suñ borom moo ko wax ci alxuraan kon loolu jërta sa xalaat yuriduuna li yutfiu noor allahi bi afwahim ay yuridu an yutfiu noor allahi bi afwahim wallaahu mutimmu nuurihi ak illaa an ya wa yaba llaahu illaa an yutimma nuurahu walaw kariha l-kaafiruun kon ñoom lool neexu leen sa waay mënuñ ci dara kon nañ xam ne lislaam suñ boro moo ko yëkkati garantel garantel ko boppam itam kenn mënu ci dara wa jaala kalimata lasina kafaru sufla wa kalimatullaahi l kon loolu nañ xam ne jër sa tii xalaat ñoom ñoo koy def nag la ñuy def du leen weesu ndax naka jëkk nag euh, suñ borom wax na ko ci alxuraan ba tey walan tarda anka al yahudu wala nasara xata tatabia millatahum te ñu itam fas yéenuñ ko def ba àddina tukki mooy li ñu ñor rek mooy lislaam rawatina fii nga xam ne fii nga ñu fekk di Touba Serigne Touba léppam di rasulullahi rasulullahi gënaloon ko léppam itam ba ma àggoon ci di wax ne mahat mahabatiyal muxtaara sayidina xubbil maxaaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada waxaatit fi neen ne xaddi wiqaayatun li rijlil mustafa an shawkatin wa xayatin wa aqrafa kon loolu képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa rek war ngaa nekk fidaaw war ngaa nekk ci di défendre l'islam di défendre rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax barkeeloo ko ci loolu nga xam ne Serigne Touba daan ko def ci diggam rasulullahi sallallahu alayhi wa ndax ndegam moo waxoon ne sama lex bii laa koy lalal ci suuf ba génn dëkk wala lu koy nur wala jaan wala lu ko jege du du du jege rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muhammadun xayru man yamshi ala xadamin muhammadun xayru man lillahi qad sajada kon Serigne Touba mboolem lu ñu tagge rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ci gën a yéeme wa huwa akmalul wara wara xalxan wa xulxan zahara wal mithlu xattu lan yura wala yura fi chemi kon loolu nañ xam ne ñoom luñ gën a xeex lislaam rek suñ boon di ko gën a yëkkati kon loolu rek laa ci doon am lu ma ci jeexale di wax ñëpp na seenum xel dal ci xam ne noonu lislaam yooyu yi nga xam ne mosuñoo dañ ci di jéem xeex lislaam saa suñ xëyee di gën a xeex lislaam rek lislaam di gën a yëkkati ndax ñoom ñun dañoo nekk ci dëgg ñoom nekk ci ak neen te alxaqu thabitun wa amal baatilu in ala fa saahiqun wa saafin kon mënuñu am dëgg mukk ci kaw li nga xam ne mooy lislaam kon nag ñun ñëpp nañ jël suñ jëm ak suñ lépp def ko ak njotu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa fas yéene dox ci képp koo xam ne yaa ngi jéem ngir jéem màbb la doonte doo ko man waaye lañu ñu ca war nag ci doomu aadama war nañ ko def jàmmaarlook noonu lislaam yi bañ xam ne laal nañ loo xam ne waratuñ ko laal te gëm naa ni itam ni àdduna sëpp maasa ju ci du ko naqaru boo léegi bala ko kenn defaat dana ko xawal bu baax